Sénégalaises, Sénégalais, Giloroises, Gilorois, mes chers compatriotes, à la veille des élections qui sera particulièrement importante pour l'avenir de notre commune, j'adresse du fond du cœur à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux les plus chaleureux. Mes sincères salutations et remerciements vont en l'endroit de la population de Djilor Saloum. Je veux aussi saluer avec respect et reconnaissance nos soldats qui défendent partout dans la commune les valeurs cardinales du mouvement Rapide Sagor. Rapide pour renforcement d'aptitude pour une politique inclusive et un développement endogène pour notre qui nous a vu grandir. Une terre hospitalière et riche que nous avons décidé légitimement de préserver, chérir et développer. Mesdames et messieurs, ma déclaration de candidature aux élections locales de janvier 2022 est un temps fort en émotion et en responsabilité. Cette déclaration n'est juste qu'un rappel car c'était déjà fait depuis le 23 décembre 2019 à Djila lors de nos journées culturelles et sportives. Nous avons organisé un point de presse pour vous faire part de cette candidature. Je mesure l'importance et la gravité du moment, tant la localité a besoin de renouveau. La localité est un véritable sentier à bâtir à bâtir avec vous, par vous et pour vous. C'est pour moi l'occasion de saluer le travail déjà gargantuesque par cette équipe, mais pas achevé. Tous ici, vous avez choisi de consacrer du temps et de l'énergie à ce noble projet. J'ai toujours pensé que là où il y a une volonté, de l'énergie, de la liberté, il y a une voie. Je pense plus que jamais qu'aujourd'hui, cette prise de conscience de toute la force, toutes les forces vives de la commune de Djilor-Saloum aura comme résultat le développement de notre localité. La, la réalisation de ce projet communautaire, porté par des acteurs à la base, tente à démontrer qu'il est possible de se mobiliser collectivement pour changer son environnement son cadre de vie et plus largement contribuer aux enjeux futurs. Les élus locaux ont un rôle majeur à jouer dans ces articulations et il est important de les renforcer dans cette mission de construction de la citoyenneté à la base. En effet, le paradigme du développement local repose sur la capacité d'acteurs locaux à s'organiser autour d'un projet c'est-à-dire se fédérer autour d'un objectif de développement commun en mobilisant les potentialités et les ressources existantes sur leur territoire. Cette définition revêt trois dimensions. Elle souligne le caractère localisé, territorialisé des actions. Elle invite à considérer la temporalité de ces actions. Cependant, je lance un appel à toute la jeunesse intellectuelle du Sénégal de bien constater avec nous que la politique actuelle des communes détermine en grande partie le fondement du système politique de notre pays. La plupart des problèmes quotidiens dans nos communes sont systématiquement dus à cette mauvaise décentralisation du parent budgétaire. Notre pays a tendance à négliger des fonds de dotation efficients pour garantir une meilleure gestion de nos ressources humaines et L'acte 3 de la décentralisation n'est pas suivi d'actes concrets. Il nous faut donc une expertise décentralisée pour appuyer le développement local avec des fonds, des outils efficients et pragmatiques. Les conséquences sont manifestes, car presque dans toutes les communes du Sénégal à faible revenu, on parle que de litiges fonciers, de détournement de fonds et de corruption, parce que ces derniers sont financièrement instables. à travers le communiqué du ministère du jeudi 3 juin 2021, je le cite, le chef de l'État se félicite du succès de l'Eurobond, opération qui a permis aux Sénégalais, Sénégal de lever 775 millions d'euros, 508 milliards pour souscrire six fois supérieur au montant Cette performance en période de pandémie de Covid-19 est le résultat de la confiance que les investisseurs ont de l'excellent comportement de l'économie sénégalaise. Fin de citation. Monsieur le ministre, l'eurobond n'est rien d'autre que des titres qui permettent au gouvernement de s'endetter sur les marchés internationaux en dollars. Dans le cas de l'eurobond, comme des bons du trésor, ces instruments d'endettement sont utilisés par l'État car il vit au-dessus de ses moyens. Ces dépenses sont supérieures aux revenus qu'il génère. Dans un monde en mutation profonde, soumise à la finance, l'appropriation par les citoyens du devenir de leur territoire et de leur cité est une nécessité, faisant en sorte que les élections locales de 2022 donnent le pouvoir à ceux qui partagent une vision du monde portant sur la coopération, la justice sociale, la solidarité, le respect de l'environnement et le mieux vivre ensemble comme horizon. Mes chers compatriotes, les élections locales et législatives revêtent une importance capitale pour l'avenir de notre pays. Ainsi, il nous faut choisir de bons élus locaux, des représentants responsables. Ceci pourrait sans nul doute rassurer ce processus de bonne gouvernance et une nouvelle alternance au lendemain des élections présidentielles de 2024. Partout dans le monde, des hommes et des femmes conjuguent leurs intelligences, leur diversité et leurs énergies en se réunissant en assemblée locale. Ils œuvrent dans la construction et à l'évolution de leur territoire de vie. Dès lors, Il est de notre devoir de bâtir un Sénégal nouveau. Le développement ne peut être qu'inclusif que si toutes les catégories de population, quel que soit leur sexe, leurs origines ethniques, leur âge et leur statut social, contribuent à créer des opportunités, partagent les bénéfices du développement et participent à la prise de décision. Il est urgentissime de faire évaluer le logiciel de l'action collective. Mes chers compatriotes, depuis que j'ai l'honneur de diriger ce mouvement, nous vivons des changements considérables de comportements positifs, mais aussi et surtout d'engagement pour la bonne marche des affaires dans la commune de Djelaksalo. Les encouragements, la participation inclusive des jeunes et des femmes n'en demeurent pas moins. Tout ça parce que nous aimons passionnément notre Djulor Djoni. Nous nous battrons pour que cette commune prenne toute sa place dans ce monde nouveau. Celui qui sait ne peut être manipulé parce que précisément qu'il sait. C'est pourquoi, je le cite, Trouvez la vérité et la vérité vous affranchira. Djulor doit rester uni et fort. Merci de votre présence. Vive le Sénégal, vive la commune de Djilor Saloum. asalaamualeykum mbokku Sénégal asalaamualeykum mbokku waa commune Djilor salum ah, man Mamadou Sidibé juuf maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ah di fédale sama coloré ci population de Djilor salum di fédélé sama coloré ci population de Djilor Saloum parce que depuis bu ñu taxawalee mouvement bi je crois que def nañ quarante 44 village gis 44 chefs de village et les 8 hameaux à loolu nag dañ ko def encore gis képp ki nga xam ne yaa ngi Djilor di def politique ñu gis la nee na ah tabax nañ wala ñu ngi bëgg tabax loo xam ne mouvement boo xam ne dañ ko wax ne rapide sa gox voilà bu ñu ko tënkee daal rapide sa gox mooy jàppale sa bopp jàppale sa ñooñ voilà pour ngir ëllëg ñu mën a soqale fi ñu dëkk man nag li ma teew fii tey rappel de candidature la parce que je crois que def naa ko depuis 23 décembre 2019 wante élection yi comme dañ ko repoussé woon moo taxoon ma taxawaat tey jàkkaarloog Sénégal wax ak ndaw Sénégal wax ak commune Djilor Saloum je crois que loolu moo tax ñu teew fi tey waa ñu toll moment boo xam ne nag dafa day waar dafa day waar parce que politique suñu gox pratiquement je l'ai dit la wax naa ko français moo déterminé nun suñu vie vécu quotidien bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla moom la ñu yaakaaree bépp gouvernement bi fi ñëwaat en 2024 loolu nag dafa politique boobu dafa war a commencer ci gox-goxaan nan lañ ko commencer ci gox-goxaan yi ñu jàppalante parce que gis ngeen problème yi fi am problème yu dey waa ndox am nañ ko problème mu ndox am nañ ko e je crois que là ça ne fait pas partie des coopérations transférées loolu dafa interpeller directement l'État du Sénégal avoir le président de la République loolu nag pour nit ñi réussir ko il faut ñu xam li ngeen bëgg pour ñu xam li ngeen bëgg il faut ngeen dajaloo en organisation collective lii moo waral élection locale. loolu nag ba mu amee def nañ ko partout dans les 44 villages de Djilor salum gis ñëpp ni nga xam ne ñooy baadoole wax naa ko courant bi ñëw na. je crois que le village ma ngi compté 44 mu nekkoon doléance su ñëpp. ne nga xam ne amuñu courant courant am na solo parce que bu ñu waxee campagne je crois que ñun ñi nga xam ne dañoo juddoo ci gox yi màggee fa jànge fa def lu nekk ba dem université jàngale pendant des années je crois que amul kenn ku nu gën a mën a xam méttitu waa gox gi loolu nag moo ñu dajale fi tey ñu nekk la bouche de nga xam ne mënuñu wax te daje nag ñoom mu nekk chef de village yi chef de village yi nag dañoo denk benn affaire bu am solo mooy dafa amoon Ablaye Wade lu leen mayoon mu nekkoon ay privilège yoo xam ne dafa bokk ci li tax gox di dox mu nekk ay indemnité yoo xam ne dañ leen ko joxoon ah am na ñoo xam ne sax jotoon nañ am voiture waaye ku xam gox goxaani xam ndool ba fa nekk xam problème ya fa nekk je crois que loolu ñu amoon ñu ngi ciy gërëm Abdoulaye wat parce que kooku xol gu rafet kese moo tax ma feddali ko li tax voiture yooyu am solo oto yooyu am solo parce que ñun ñëpp xam nañu santé bi dafa précaire au niveau ci suñu gox yi. voiture yooyu nag dafa nekkoon mooy yoo xam ne dafa nekkoon mooy yoo xam ne ñoo doon remplacer sax ambulance mu nekk loo xam ne population bi yëpp dañ ci doon gis seen bopp mais chef de village bi dirigé par exemple 1000 habitants. kooku amul benn indemnité te je crois que d'office moo fa représenté chef de l'État te boo gisee suñu gox yi problème yu bëri du yegg tribunal champion yooyu ñoo koy joué wax naa ko am amul kenn koo xam ne mun na xam loolu et loolu nag dafa nekk loo xam ne du à travers le mouvement kese moo koy wax moo tax ma koy wax dama rencontré les 44 villages yu Djilor Saloum chef de village de Djilor Saloum ñu wax ma métit boobu ñu ngi sant lu gouvernement de Sénégal mais ñu ngi wax Macky Sall aussi mu jàppale chef de village yi jàppale santé bi parce que loolu daal dénk nañu ko ñu nekk ci gox boo xam ne aussi je crois que képp ku wax Djilor xam ne mbéy la yaakaar ak napp mu nekk lu ndool fa parce que mënuñu ne ñun ñooy as dañoo bokk ci bassin arachidier ñun ñooy gën a bari gerte te amul benn tracteur boo xam ne gouvernement bi utiliser na ko pour jàppale gox goxaan yi wala dans la pêche mu accompagner nit ñi loolu nag tax na ñi nga xam ne ñoo sànq rapide sa gox loolu la ñuy wax parce que comme doléance yi nuñ koy kaase rek gars yi la plupart du temps dañu xaar ba élection yi ñëw ah ñu passé par la voix du président de la république ne ko président lañu fi nekkal pour lijjante gox bi waaye benn affaire rek la remarqué que ñoom dañuy utiliser ci benn façon bu simple parce que autorité bi nga xam ne responsable la mu ne la ku mun sa morom duma je crois que bu nekkoon ne ku mun sa moroom duma mooy doxal réew mi kenn du dem fenn rapide nag dafa nekk un produit produit local. di nga xam ne laluwul fenn ci parti politique. am na ñu ñuy collaborer am na ñu ñuy yaakaar ànd ak élection yo à plus forte raison le FNR xam na dinaa ci ñëwaat ci question yi ci ñi nga xam ne aussi wax dëgg fa la yaakaar nañ ni ñii mun nañ yor réew mi ëllëg parce que Macky Sall defal na Sénégal lépp ambition yi mu amoon en 2012 ak yi mu yor nii képp ku ko gis rek xam ne am na loo xam ne xel mën na ko nangu ko def na lu mu mënoon def li des nag. yéen yéen ay choisir seen président suba te pour ñu choisir ko nii kese la ñu mën a demee ba jiloor bu ñuy laajati suba ñu nekk seen ndaw yaa nga assemblée seen ndaw yaa nga commune ya ndaw yaa nga partout au Sénégal comme on l'a eu commune de Djilor Saloum loolu nag dafa laajte ñu ndaw Djilor parce que man maa fi toog au nom de ce mouvement mais nag yaakaar naa ne élection yi bu ñëwee ku nekk da ngay fàtte sa bopp ngir le développement de Djilor parce que yàgg nañ ko def wax naa leen man je suis enseignant je enseignant jàng leen naa euh, école de Sadio Ga laa jàngee ñëw euh, CEM de Djilor Saloum amee sama BFM dans le département bu Foundiougne dem Tivaouane ñëwaat université ba ay atu at continue foofu ñëwaat dans l'enseignement ba Casamance loolu nag ay expérience yu léegi la ay jaar-jaar yu yu bëri bëri bëri la mais nag du man mi may wax nii man maa sekk rapide sa gox fa am ñoo xam ne sax ils font de la politique ñëw jàpp ci dara yëkkatu leen pour gëm Djilor ñun nag dañu gëm ne ñay développé Djilor ñoo ñi nga xam ne taxaw nañ tam bañ a toog ci mbedd mi rek ne ko yëf yi doxul wala nekkee diw nii di defal nit loolu defal nit ki promotion la. parce que boo demee ba ñu ne am nga âge maturité mën nga taxaw sa réew fësal ko nga commencé liggéey ba ku la ci fekk nga xam ne yaa ngi ca waar wa loolu kese moo tax mbokk Djilor ñu toog fii toogal fii ñëpp nag parce que lépp lu ñuy def nii am na ñeneen ñoo xam ne sax mën nañ ko def wala doubler ko je crois que force yooyu bu ñu ko rassembler tey ci loor kenn bu ñëwee bag ko diviser di nga weet lool. loolu daal moo ñu indi fii ñu jàpp ci jàppale Sénégal Sénégal mën a naat ñu bañ a politiquer rek ngiru gouvernement parce que lii goxu goxaan la boo leen amee confiance yi man tey jii xam ne man mun naa. gérer ak sama équipe la commune de Djilor Sam ak frères yi ma am yëpp dans la commune muy nekk élève mu nekk étudiant mu am ku liggéey ku amul liggéey ñun ñëpp ñu jàppandoo gëm consigne bi ma leen wax ni mooy rapide sa gox jàppale sa bopp jàppale sa gox jàppale sa ñoñ yaakaar naa ne bu ñu ko defee Sénégal yëpp dinañ inspiré Sénégal yëpp te élection bi di ñëw présidentielle en 2024 ah dinañ xam ne voilà kii moo baax ci réew mi ñu jàppale ko extraordinaire phase bu extraordinaire wax na ko en français parce que dañu wax ne gouvernement bi créé haut la main eurobond mu nekk loolu benn firndeel kese la c'est-à-dire Sénégal am na possibilité ab xaalis abu ko ci beneen euh, ci beneen ci beneen ci beneen ci beneen xaalis boo xam ne nekkul xaalis bi nga xam ne moom lañ moom lañu comme le franc fa ou l'euro moom lañ ko xamee c'est-à-dire dollar moomuñ ko fi nga xam ne ñun suñu investissement yëpp fa lañ ko jëlee je crois que euro la ak le franc CFA loolu nag Sénégal buñ ko ndamoo waaw parce que dina indi problème fan la problème bi nekk mooy ñun suñu dund bi day yokku parce que Sénégal bu nekkee niveau bu muy dund ak lu muy jot ci xaalis ci taxe mu supérieur ah moom li mu war a investir loolu day indi problème suba nan la indee problème boo xoolee partout dans le Sénégal sanc yaa ngi jóg ñu ne mag yi mu ngi liggéey waaye saa mu ngi liggéey waaye loolu di nga jaar a jaar benn fen benn benn benn affaire donc lay firndeel parce que dañu leb xaalis dañu leba lebaleb français faaf lebaleb euro ba ñu ne leen yéen fii ngeen mun a yem ah suñ sanc yeggul ñu ne am nañ possibilité muy eurobond am nañ possibilité lebaat ko feneen Sénégal buy dundu dund dund ba mënatul fay lu muy leb donc lan la yaakaar ceeb gu yokku ciment bu yokku leneen du yokku foo jaar ñu ne la fii da koy fay. ah loolu ñu yaakaar ne bu continuer depuis de fii ba deux mille vingt quatre ah di nga jaar sa tool sax ñu ne à nga jaar wala naan ndox ci teen bi ñu ne à payer wala nga jaar wala béy sa tool mu ne moomatoo tool bi parce Sénégal li mu amoon yëpp jaay na ko à payer doonu kan kan moo ci souffrir parce que ñaata usines ñoo nekk Sénégal pratiquement saak bii. tonne bi mu ngi à soixante dix mille je crois que d'ici deux mille vingt quatre à ce rythme boo leen koy gisee cent di ngeen xam ne lu tax Sénégal yëgg fii ci coono loolu nag day indi ambition te loolu am na ñoo xam ne tey jii ci réew mi mën nañu def lu ko ëpp parce que ambition kese la wax naa ko keroog boo xoolee aux États-Unis dañoo am lu ñuy wax président euh, club des président xam nga li tax mu am solo Diouf Senghor jaar na fii. Diouf jaar fi Ablaye wat jaar fi Macky Sall jaar fi ñu ne expérience bi ñu am noonu yëpp président yooyu bu nekkee dañu amoon club jàppale benn président préparé benn président bi nga xam ne par exemple moo jël Sénégal en 2024 je crois que erreur yooyu dinañ ko mën a corriger erreur yooyu dañ ci mën a jàppale président bii ñëw parce que man moom laa yërëm parce que bu nekkee dañoo lebale bale bale bale ba mënatuñu fay dem ci beneen xaalis di lebee foofu pour continuer suñu marché ça veut ñu suñu entreprise day mujj a tëj ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen di wuutal parce que privé bi mooy gën a engagé dans le marché de l'emploi ndaw yi ñu yaakaar pour ñu jàppale Sénégal ñooñu dañuy dem du ñu amati xëy éducation bi day na saxee réew mi day tas donc loolu yéenewuñ ko kenn moo tax ñun ñëpp ñu war a jàpp ci politique locale bi ñun ñëpp ñu war a jàpp ci fi gën waxaluma fi kenn nag damay wax rek ngir un produit local lan lay jëriñ ci gox ban sensibilisation la mun a def ci niveau de la population ba cortège bu rombee rek wala sa mun sa morom duma bu rombee rek nga daxa ah waa ji de fi ñëwoon cinq ans géej ñaa ko gis parce que mosuma dégg benn assemblée au niveau de l'hémicycle ñuy wax problème Djilor ndoxu problème ndoxu Djilor wala électrification Djilor wala ñuy wax effectivement tracteur ya nga xam ne waa Djilor amuñ ko wala ñuy wax ne chef de village coono gi ñuy daj mille et quelques habitants nga diriger ko Ablaye Wade joxoon na la voiture ñu nangu ko Ablaye Wade joxoon na la indemnité ñu nangu ko yow alors que d'office yow yaay représenté chef de l'État administrativement dans les villages loolu nag dafa nekk lu métti métti yoo xam ne ñu ngi koy dund ki nga xam ne nag dafa dund ci taax xëy na mën na bañ a maîtriser loolu waaye ñun ñi nga xam ne dañoo dund ci taax dañoo dund ci gox gi dund village xam ndox mu sellul lu muy def ci doomu aadama te dañ koy naan te ba tey bi ma lay wax dans la commune de Djilor Saloum ndox mu sellul moomu la ñuy nan et dans tout le département de Foundiougne je crois que chantier yooyu yëpp di jog je crois que l'eau fait partie des plus grandes priorités loolu daal yaakaar nañ ne ñi fa nekk comme dañuy préparer jël seen bagage en 2024 parce que loolu mooy actuellement ce qui se passe actuellement bu nekkee ndaw Sénégal yëpp gëm nañ ne ah président li koy may doole mooy institution waaye amul kenn kuy am institution yu ñuy am lii nga nekk ci boppu réew mi te amoo doole moo tax loo yuuxu yuuxu loo far far far far nañu analyser lu ñuy wax ni boo gisee nag ba dugg dans le domaine économique je projet professeur d'anglais dama subir formation yu bëri sur l'économie du Sénégal def ko ak ñoo xam ne c'est des professeurs je veux citer Demba Moussa Dembélé c'est un économiste il y a Moussa Babou professeur d'économie du Sénégal ñooñu ma si biir ay euh, formation yoo xam ne pratiquement c'était en visioconférence ñu wax ci Sénégal lan moo ko mën a yëkkati suba. loolu mu nekk loo xam ne ñëpp amuñ accès ci loolu te ñu war a bàyyi suñu xel ci loolu parce que Sénégal ñun ñoo ko moom mais moom muñ ko en grande partie parce qu'il y a des milliers de générations qui vont passer loolu nag bu nekkee nag suñu cupidité wala bëgg àdduna moo tax génération yooyu lu ñu war a am ñu jaay ko pour tey kese kese kese kese ba kenn ku war a falu en 2024 doo fi fekkati dara wala nga nekk ci coono wala euh, club bi ma lay wax nii fédéle ko jàppale ñi nga xam ne ñoo war a nekk ndaw yor Sénégal te ma gis ko ci fu nekk ci parti yu nekk loolu daal moo taxoon ñu ne waa jiloor bu ñu mayee confiance boobu ñu ngi fii di fédérer suñu candidature bi nga xam ni waxoon ko nañ ko en euh, le 23 décembre 2024 point de presse boo xam ne organisé nañ ko. donc loolu jarul ñu ñëw ci commune bi ba foofu di koy wax parce que boo xoolee sama discours yépp dama ko centré sur la politique locale à travers tout le Sénégal. loolu moo tax war nañ mën a toog fii wax ci loolu comme suñu morom nu ñu koy defee partout au Sénégal loolu nag dañoo war a dañ ko war a def rek di yeete. Euh, maa ngi gërëm mbokku Djilokh Saloum maxe gidma o fogole euh, mbin farba sadio ga euh, ngeekoox gaage chérif waagimo lum fop 44 village vraiment laaye o pog nun mamadou sidibé diouf ten geenoxu meek ba fa laya fa nuun a langue séeréer parce que important je suis dans le milieu séeréer gimin o séeréer koy a gim gim xooxum wawi ga anga kaga foof rek imoƴo ndamiro ah, par que i ndefa xa teɓa xa ando naye i njanga njega bo jeg maturité ke na gérer sénégal fop yakarame nu ndamtanga en dal i mbaga mbadma gérer in représenter la commune de Djilokh Saloum mais surtout département Foundiougne yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant